jërëjëf mbokk internet yu Dakar Buzz ñu ngi leen di nuyu baax di leen siyaare di sant yàlla ci ni ngeen ñu toppee ci seen émission mag bi di Dakar Buzz social di amaan mbégte jàkkaarwaat ak yéen rek ci ni ngeen di bàyyi xel émission bi di leen sant di leen gërëm saa ne rek ci ni ñuy def saa nu tàbbalee kaa rek ngeen dugal ci seen ñaq wax dëgg yàlla ñu gis ci si total macha allah yàlla mi mën a sàmm te mën a fay yàlla yàlla fay leen tàmbalee ko ci bonne volonté yi fii ñu yónnee cent franc ñu yónnee téeméer mais ñu yónnee plus que yàlla bi mën a fay gis na jëf ci yàlla na yàlla fay leen. di gërëm tam groupe yi ñu jàppale ci liggéey bi Dakar ba social bu Italie ñoom sëñ Jili Ndiaye sëñ Xaadim Sarr soxnaa su borom daaru Baye Saliou soxna Alima jàmbaar yooyu ak Dakar ba social bu France soxnaa su Ngom ak ñi bokk bokkal liggéey bi soxna Seyna bu Amérique bonne volonté soxna Awa Top Ndeye Solo soxna Faat soxna Aji bari nañ macha allah jàmbaar yooyu Mouhamed Amar Girif Sigu ak ñeneen ak ñeneen ñoo xam ne limuñu leen sax te daanaka ñoo gën a nekk jàmbaar ñooñu ma lim ndax euh, ku lim da nga dul mat juum mais da dul matal di am mbégte ci yéen ñëpp di ñaan jàmm ci réew mi bonne volonté yi nekk ci kaaw bi amaguñu kayit yàlla may leen ay kayit ñu mën a ñibbisi muy sénégalais ak gambien ñëpp rek ñu ngi leen di ñaanal yàlla defal leen tawfiq ma jël si waat benn kaa nag xale bi nag déggul olof mais toog naa ak frère am yàgg na ma woo nag mais dafa tombé ak ma ne ci ay xat-xat ne ci ay liggéey yoo xam ne euh, mënuma koo booleek leneen parce que euh, liggéey bi chargé wu na suñu kaw sant yàlla ñu ngi daw guddi di daw bëccëg lépp rek pour euh, sénégalais yi gis ci seen bopp ak ñu nekkul sénégalais sax taa yaakaar ci Dakar Buzz tey la ko yàlla dogal tey feram sëram laa dal mu am problème feebar boo xam ne moom mooy expliqué li ci nekk lépp bu baax nuyu naa maa ngi lay fay Fadel maa ngi la nuyu di mbokk yëpp. ah xale bi nu mu tudd. mu ngi tudd Mariétou Kandé. lan moo ko dal. xale bi dafa judduwaale ak feebar boo xam ne dañ ko opéré woon bu mu nekkee xale mais ba léegi yàlla dafa def ne du mun a téye ginnaaw kër ak saw noonu lañ nekkee ak moom village nag laa ko jëlee ngir gisoon gaa yi di dimbali nit ñi rek te yàlla tax ma gëm ne aussi bu ma ko indee mun na am mu am ci ndimbali yooyu. parce que mérité na ko te parce que am na léegi treize ans ba léegi même chose couche te bu doon couche sax normal ñu wax mi couche la boo xam ne chaque instant la ndax moom dadul yëg dara saw yi ni muy ñëwee ak ginnaaw kër gi lépp ay jaxasoo am na léegi treize ans te jigéen moom xam nañ ne bu amee treize ans rek dina am leneen lu ci tegu yoo xam ne dafa yokk coono ji ma gis nag sama yaay nekk ak moom foofu village <clears throat> ci situation yu métti munu ci def dara doom na li muy daw li yaakaaroon nañ voyage ñu def ci li ñuy def li yëpp yàlla def loolu yëpp dara sottiwul man nag ma doon jàng bàyyi jàng bi ñoo dimbali ko te yàlla tax parce que tamit sama yaay man la yaakaar moom ñun la yaakaar ma indi ko fii ci ndakaaru nekk fi man ak moom ak sama soxna ñuy taaba taaba di xool nuñ koy mën a dimbale ci loolu laal nekk lu ñu dund. couche yi muy utiliser eh, couche eh, ñaata couche la utiliser par jour. bon li mu utiliser par jour nag dafay bëri parce que couche bi ça dépend ci biir bi fu mu toll te biir bi day daw lu bëri ndax lekk gi dafa am lekk goo xam ne du ko arrange te lekk yi nga xam ne war na ko mun a lekk normal ba mu nekk ba situation stable ay ru yoo xam ne da nga ko war a jënd. lekk ceeb ak zaar yooyu ni ñuy dundee fii moom yooyu li ci gën a bëri day daw biiram looloo tax mun na utiliser cinq couches par jour wala sax parfois mu ëpp ko ndax tey rek bi ñu xëyee biir bi dafay daw utiliser na presque lu mot trois couches ci paquet couches yi affaire bi dafa xaw a cher tuuti sant yàlla nag. paquet couche bi ñaa lay jar. paquet couche bi dafa moom na yàlla dafa def ne comme xale la dafa am yax tuuti couche yëpp la mun a utiliser mais Eh, paquet yi parfois da nga am paquet boo xam ne day dem ba douze mille wàcc ci suuf ba cinq mille yi may jënd temps yi cinq mille laa koy jëndee parce que waa ji miinante nañ ça fait presque euh, huit mois maa ngi jënd ci moom moo tax mu xaw maa miin ba parfois bu ma amul sax bu ñëwee mu jox ma dem douze mille daal ba wàcc euh, ci suuf loolu dañ koy faral di jënd. cinq mille daal di nga am paquet de course. ko am dinañ am paquet de course bi ñaata course lay def. dina am parfois quatorze parfois nag nga am boo xam ne dañ la koy jaaye cinq mille mu am vingt vingt quatre pièces mhm. mais nag du tax mu yàgg nag ah, joxoon naa la fi paquet couche boobu doon na arrangé woon na ko doon na ko utiliser waaw boobu doon na ko utiliser te boobu xawoon na aussi yàgg ci moom tuuti mais tuuti rek parce que moom couche moom moom moo gën a lekk sax parce que man mii parfois su xawee dëgër bu mu waree jënd lekk nii sax mu ne ma jëndal lu oyof nga dem li ji jëndee ko couche def nañ ba ci loolu lañ nekk guddi ak bëccëg nag amul arrêt. Hmm. lan ngay wax ñi lay seetaan pour nu mën la dimbali ci xale bi mu génn ci étape bi parce que waxuma sax couche yi mu génn ci étape bi ba mën a faju tàggali ko couche. ah wax dëgg neex yàlla ku ko mën a dimbali daal mu xam ne jaamu yàlla dëggantaan la ndax euh, dund moom mii mu nekk xale bu ndaw bi mu juddoo ba tey noonu la. saw yi day dagg pooj parfois bu tàngee day booy moom loolu daf koy sonal ba nga xamante ne euh, parfois sax guddi gi yëpp day jooy munu ci dara ñu ni tam munuñ ci dara lañu ñu mën rek la ñu mën a def jënd benn ventilo tegal ko ko mu koy ëpp bu tëddee guddi noonu lay demee donc ku ko jàppale jàpp naa ne jàmm yàlla dëgg la jàmm yàlla bu wér peng la ndax euh, jàngul jàngul école jàngul alxuraan jàngul fenn parce que mënut nekk fenn. benn nit moo ko mën a supporter ci àdduna mooy yaayam ak man mi nga xam ne indi naa ko fi ñun dañoo ko mën a supporter boo nekkee ak moom tuuti xet bi la lay sonal donc jàpp naa ne ku ko dimbali defal nga yàlla moo tax ñu ci woo képp koo xam ne bëgg na ko dimbali mu dimbali ko te yàlla tax ndax munte woy ñun amuñu doole dañu jéem buñ demee ba yàlla def li muy def munatuñu dañ koy delloo donc dafay obligé dund ak feebar donc moo tax ñuy ñaan képp ku ñu mun a dimbali Fadel mu dimbaleen ci yàlla tax xale bi sonn na trop sonn na ba ci sonn fu sonn yem moo bi ñu ñëw nii sax day wax même bu couche bi tooyee nan laa koy dindee parce que damay ruus nit ñi commencé na màgg commencé na xam ne bi mu nekkee dëkk ba xamul woon mais bu mu ñëwee fii la xam ne ni mu mel c'est pas normal loolu moo tax daal ñu ci sàkk mbokku jullit di ndimbal fu waaye nekk daal ñu la koy tàllal loxo. ku leen mën a dimbali tam ci couche tam baax na tam parce que soxla ngeen tam couche ku leen mën a jàppale ci ay couche. couche moo ko gën a lekk parce que mooy sutura couche mooy sutura couche la gën a soxla ko lekk sax parce que bi ma ñëwee fii ba tey ñaari yére laa ko mës a jëndal parce que bu ma ko bëggee jënd sax day bañ damay naan jëndal ma couche parce que man génn ma dew ma fenn kon couche moom mooy fondement bi mooy lépp. couche mooy fondement bi. kon yéen ñi ñuy seetaan koo mën a jàppale ci couche rek ci lu mu gën a gaaw soxla na ko te lu mu ci am doyul maa leen ciy talal loxo yéen ñëpp man mii joxoon naa ko fi pakati couche mais moment yi muy ñëw dafa tombeek man tam couche du yàgg ci man parce que couche bu dikkee rek nit da koy soxla te soxla moom soxla rek la moom duñ dencal ëllëg dañuy soxla rek ki soxla rek ñu jox la moo tax bi couche yi ñëwee ma jël ko joxe woon ko mu desoon benn paquet couche bu mag. moom bi ma expliqué ci laa ko ne léegi en attendant comme maa ngi ci liggéey bi te liggéey bi ñett na ma maa ngi ci tournage di daw nekk ci cas nga xam ne ay cas jalis la ay cas cancer en attendant dinaa la dimbali paquet couche bu mag le temps tuuti sama ligg loxo xaw féex ma mën faa ñëw defal la vidéo teel ak suñu borom dogal ku am paquet couche dimbali ko ndax bu dee ba ni couche moo ko gënal ay yére couche moo ko gënal lekk kon c'est parce que nit ak soxlaam couche la comme nag euh, mi ngi doon am problème couche yooyu ba tax moom mooy problème am Eh, ñun Dakar Buzz eh, wax dëgg yàlla dañ ko jàpp paquet course nga ne woon 5000 lay jar. 5000 lay jar. ñun dinañ la jàppale 10 eh, 000 nga jënd ci ñaari paquet bariwul waaye kaay day bari suñu kaw ba njett ñu ba actuellement doo xamante noo ciy def te lu nu bett la parce que bëgguñu rejeté kenn comme cas bett nañu te wax dëgg yàlla bëgguñu tas sa yaakaar parce que Dakar Buzz gis ngeen tàmm ngeen ko saa seetee malaat am lu mu yëkkati jox ko comme xas na ba ñëw te bëgguñu koo neenal. te it bëgg noo tas yaakaaram dinañ ko jox mu jënd ñaari pakatu couche ma ci xaar nag ndimbal gu jóge ci yéen ñëw ci moom couche ak xaalis bu ko waaye mën a jàppale lépp numéro magam bi dana nekk ci écran bi lu waay yéen a may ko ko mu mën ko jël jëfandikoo ko comme nag danoo fekk ci tournage dab nu ci kaw yoon te mënunoo tas yaakaaram moo tax ñu koy dimbalee dix mille jox ko mu jënd ñaari pakatu couche peut-être dina mën a dem moom xam naa lu weesu muy numéro bi nga xam ne mooy numéro Dakar Buzz Social bi ngeen di dimbalee ñu ko joxaat malade yi lii nu ko jox sax dañ koo jëlee ci xaalis malade jàmbur malade bu nu war a seet ci leen teq loolu jox ko ko ngir kenn ku ne mos ndax fekk loo xam ne lu luñ programme la kon ma jox ko 10 000 li nga xam ne moom lañ koy dimbalee muy ñaari paquet course jërëjëf ba tey euh, euh, sa sœur la feebar bi xaw na ko sonal néew ngeen ci doole Dakar Buzz mi ngi ñëw di ko ñaanal dimbal dimbalee ko ñaari paquet course lan ngay wax waa ah ñu ngi ñaanal yàlla waa Dakar Buzz dèjà xam naa ne suñu wayjur bu jigéen moom mooy njëkk ñaanal waa Dakar Buzz ndax bi ma koy déplacé jëlee ko village indi ko fii moom amu ci woon yaakaar bi ma ko tuddee bi ma ko tuddalee am na ñu fa nekk ñu tudd nii dakaar Buzz ñu mën a dimbali ay nit danañ ñoon de yàlla leen yàlla fay donc buñ am lii duñ ko xeeb. ndax ñun lu ñu waaye dimbalee ci lii ñu santee ko yàlla kon nag yàlla yàlla yokku Dakar Buzz ñu taxaw yàlla taxaw leen ba ñu yegg fu ñu bëgg a yegg ci àdduna macha allah yàlla yàlla taxaw leen bu baax a baax. mais daal soxla ku la jàppale ci Kossy. bu baax a baax Kossy Fadel Kossy Kossy Kossy dafa métti de Kossy dafa métti trop trop trop parce que bu dee euh, li ñuy def euh, li ñuy dem fan par. Euh, ñaari ñaar ñaar fan la ñuy dem mardi ak jeudi la ñuy dem fan defe ji massage kinési taxi bi metti na mais couche yi chaque heure la chaque waxtu la mu ngi dépendre ci moom rek mu ngi dépendre ci moom. Mhm. jërëjëf mi ngi dépendre ci moom lii moo nekkoon seen émission Dakar Buzz sociale ci micro bi Fadal mi ngeen tàmm di gis la cadre bi Omar laa ci àndal euh, euh, euh, nan ko jàppale Dakar Buzz nag li ma naan du tas yaakaar bett na ko waaye lu la bett man la teewul kaa bi nu waroon a dem pour dimbali kooku duñ tas yaakaar kooku may duñ tas yaakaar kii dañuy téq ci lii jox ko mu jënd ñaari paquet kuus comme kuus lay gën di soxla ñi ngi xaar ndimbal bu jóge ci yéen ñoo ci moom mais li ci jiitu mooy kuus ndax xale baa ngi jël as te mënta ñàkk kuus ku ko bëgg a jàppale tam numéro frère am di nekk ci barre écran bi loo ko yéene boo ko fa yónnee dina ko dajale xool xale bi mu mën a defee traitement yàlla na ñëpp am jàmm jërë ngeen jëf